accusé nañu police dañuy moom moo yore ay nervi dand ak ay nervi am nañu ne ni police moom moo tiré à balles réelles police ak gendarmerie sax nañu war ci ay manifestant police il fallait mu setal deram ndax réussir na ou loolu beneen beneen beneen mbir la mais il fale mu setal deram ne ni lii ngeen gis ci ay images ay vidéo du ñun jegewuñu ci ñun bokkuñu ci ñun te am nañu ci jàpp ñu yore ay arme de guerre parce que dem maa ngi koy wax fii ci plateau yi armes yooyu ñu gisee ñu wane ko police sax yorewuñu ko gendarmerie yorewuñu ko xam nga ñu koy yore ci biir police wala gendarmerie ñu yooyee force spéciale yi ñoo koy yore su ma nee force spéciale mooy ci biir gendarmerie am na ñuy wooyee GIGN ñoo xamee ni ñoom dañuy dem ba ci yenn ci ay liggéey yu ñu leen di sant mën nañ dem ba euh, fu am prise d'otage sax ñoom la ñuy woo ne leen ñëw leen pour mën a euh, libérer ñu ñu jël en otage BIP di brigade d'intervention de la police doon ay kàngam ci wàllug euh, force spéciale yoo xam ne ñoom peut-être mën nañu yore xeetu ngànnaay yooyu te sax taxul ñu am ko wala ñu mën ko jëfandikoo wala muy génn ci anam bu mën a ne ay armes de guerre la euh, Alamine arme de guerre du police wala gendarmerie moo ko yore militaire ñoo koy yore fan la jóge nan la def ba dugg biir Dakar ay nit di trimbale ak moom di mën a dox ak arme de guerre di mën a xupp ay nit wala di mën a tiir ci ay euh, ci kaw ay nit euh, il fallait que police génn maintenant nag comme j'ai di génn police est-ce que euh, dalal na xelu nit wala est-ce que tax na ñu setal seen bopp interrogation la parce que am na ñu gis ci wàllu police du ren rek ñoo xamee ni dañuy den rek ay nit ñoo xamee ni ay nervi lañu nervi laa leen di wooye lii terme yaakaar naa Cheikh moo doon bañ terme boobu sànq mais je les appelle des nervi ñi nga xamee ni dañuy nekk ci pick-up yore ay ay bant yu gudd bant yoo xamee ni dañuy ñëw taxaw gaare seen oto L200 wala euh, van wala lu mu mën a doon amul immatriculation gis nañ fi sax daaw loo xamee ni benn société sénégalaise la ñu la ñu taf ci ci ci oto yooyu mu yëpp ay nit yu mel noonu ñëw dend ak police nga xamee ni ñoom ñoo yore wàllu euh, kaaraange ak euh, gendarme mais euh, de maa ngi koy wax am na benn gradé wu police loolu bi muy am 2021 li mu wax mooy nii man sama xol day metti te ñu may àndal seen xol di metti parce que dañuy ñëw taxaw ñun en tant que policier wala gendarme de formation ñu ne ñuy lii mooy seen liggéey di ñu fay ci salaire boobu ñu ñëw ñu toftal ñu ci suñu wet ñoo xamee duñu police duñu gendarmerie yore ay bant yore ay yet te ñun ñii di ay euh, simple policier mënuñoo wax parce que bu ñu waxee fekk na commandant ba ñu jiitu wala ki nga xamee ne moom moo ñu jiiti euh, di euh, ci kii fi ñu nekk ci di gérer li di wàlluk sécurité kooku ci boppam mu ngi leen di gis te waxul dara ñun ñii ay subalterne mënuñoo nekk foofu di wax dara donc yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne ni police faw état jox ko doole nu muy joxe doole police joxee doole gendarmerie mooy fexe ba ñi leen di rax te bokkuñu ci ñoom seen bopp xam ne ni ñii bokkuñu ci mais ñu mën leen a identifier mën leen ci génne amul ku war a dend ak police yore fetal wala yore jaasi wala yore yet ba pare police di la seetaan dañ la war a jàppee comme ni ñuy jàppee manifestant bi nga xamee ni dafa yore paaka wala jaasi wala yet di ñëw di dal ci kaw euh, euh, yeneen i citoyen mais nga ñëw taxaw ci côté police attention il y des policiers qui peuvent être en civil il faut que loolu leer parce que ci wàllu euh, gestion wu euh, yenn ci ay situation bu amee hmm. police mën na nekk civil hmm. civil bi nag mooy di nga gis policier boo xamee ni ci wàllug euh, renseignement bi muy liggéey dina dem ci benn zone mel ni jaaykatu café Touba wala jaaykatu Nescafé bii nii donte du publicité wala koo xam ne dafay mel ni kuy yalwaan mais parce que information lay wut ci par exemple bërëb bi ñu gis ni fii dañ fiy jaay yàmba wala infiltration boo xam ni day ñëw civilu solu benn yëre boo xam ne da nga naan kii de euh, jaaykatu kafe la wala jaaykatu nangam la jaaykatu soccoog yooyu alors que policier la mais yooyu cas bu amee ñoom du ñu nekk di yore ay gànnaay di tirer ci ay nit ak yooyu mais dañuy ñëw pour informer xam ne infiltration xam ne bërëb bii par exemple am na lu fiy waaj a xew ñoom ñu jóge ci